laata ñuy sóobu ak Souleymane ci waxtaan bi ñu nuyu gan gi Alioune Tine ñu ngi lay nuyu. mu ngi noonu yow nag yaay fondateur Afrikajom Center ci kanam tuuti daañu taxaw ci waxtaan bi mais mën nañoo door ak Souleymane. ak Souleymane jàngat bi nag tey ci ajuma ji fàtti ñu ngi ko jagle rek xew-xewu jamono ku ne xam na ni ñi ngi ci situation bu compliqué bi àdduna bi rawatina Sénégal ak épidémie bi di mbas mi mm. coronavirus fi mu toll am na ay mesures yoo xamante ni bi mu fi doog dugg ci weeru mars kilifa yi jëloon nañ ko yaakaar ni mën a buñ ko defee mm. mbas mi dina fi teel a jóge juróomi weer après mu mel ni kon situation baa ngi jëm ko tey ji ci ngoon ministre de l'intérieur war na ñëw waxaat ay mesures yoo xamante ni kilifa yi jonan ko le président a donné un avant-goût démb ci conseil présidentiel bi ñu jagleel gestion épidémie bi ba ne sax dàqul ñu amal li naan état d'urgence localisé terme la boo xamante ni moom président moo ko jiite laataa loolu Souleymane ba mbir mi doog am am na ay dogal yoo xamante ni kilifa yi jëloon nañ ko est-ce que loolu effectivité ba matoon na ba tey ñuy xalaataat jël yeneen dogal ngir taaral mbir yi. Euh, waaw euh, gannaaw ba ma delluwaatee di nuyu ñëpp. di nuyu suñu téléspectateurs yi. Euh, effectivité mesure mesure dañ koy fàttali. Euh, li ci njëkk benn bi moom mooy takk masque. dañu ne woon moom mooy moyen bu gën a wóor. ngir aar sa bopp. aar ñeneen ñi. dëgg parce que boo takkee masque bi. amaana virus bi euh, xëj na masque du téye virus a cent pour cent. waaye dina wàññi bu nekkee da nga nekk ku am virus bi. xëj na bu waxee du ñàkk. am lu jóge ci moom dem ci nit ñi. Euh, masque bi dina la aar. waaye yow sa bopp bu nekkee da nga ànd ak virus bi. boo waxee walla nga tisooli walla nga sëqat walla yi nu mel. masque bi amaana mën na ko téye. donc su ma solee masque keneen sol masque mu wàññi ci man wàññi ci moom amaana du egg fu mu egg tey. loolu benn la. beneen bi mooy ñu ne nañu raxas loxo yi di dëkkoo di ko raxas. bu ñu amul ndox ak saabu buñ ko raxasee gel hydroalcoolique yi nga xam ne mu ngi ne gàññi nag ci dëkk bi nit ñi di ko utiliser mhm. surtout bu ñu nekkee foo xam ne du ñu egg ci ndox walla ci saabu beneen bi moom mooy ñu dandante mhm. bàyyi un mètre ba un mètre cinquante walla deux mètres mhm. suñu diggante ah xam nga yooyu yëpp ay mesures la woon yoo xam ne waxoon nañ ko sans compter yeneen yi nañu wàññi déplacement yi wàññi rassemblement yi yooyu yëpp bu ñu ko boolee normalement war na am njeexital ci xeex bi ñuy xeex mbas mi mhm. waaye li ñu seetlu moom mooy mbas bi delluwul gannaaw delluwul gannaaw te ñi koy weddi ah wax dëgg yàlla xëj na seen niveau d'information te dinañ jaaxal ci yenn niveau de responsabilité état bi mhm. ñu njort ni mhm. information bu eggu fa euh, misaal démb dafa am benn document bu ñu publier boo xam ne date datu document bi. Mhm. le 3 out la. Mhm. document moom mu ngi tudd CITREP. Mhm. te ñun ñëpp war nañ di si bàyyi xel. ñu ngi ci 43e numéro CITREP CITREP. rapport la boo xam ne tous les 3 quatre jours lay génn. CITREP boobu fa la ñuy wax xeex bi lu mu doxee fu mu toll et cetera CITREP bu mujjee amaana tey dina am benn CITREP bu génn diggante le trois ak léegi xam nga léegi mu mat euh, cinq jours. donc dina am benn bu génn xëñ na tey. Mm-hmm. waaye bi mujjee le trois ñu ngi woon ci nombre de morts yi mm-hmm. je pense mais xam nga booy xool nombre de décès yi au jour le jour. Mm-hmm. da ngay réer ndax dina am benn fan démb am nañ juróom juróomi nit ñu faatu. waaye le jour d'avant ou deux jours avant zéro lañu ñu am. bu boobaa booy analyser. journalièrement day day day fausser information bi mhm. mais boo delloo nga xool semaine par semaine rawatina nag weer ba weer mhm. parce que CITRES bi loolu la génnee mhm. mois de juin 66 morts la ñu amoon cumulé ci mois bi ci weer bi juin 66 mois de juillet 96 morts la ñu am au mois de mai on était à moins de 40 loolu lan lay tekki diggante mai ak juin nombre de morts bi dafa doublé ñu demal ci diggante juin ak juillet am fanweer yu ci tegu mhm. boo defee moyenne bi mois de mai mhm. trente morts et quelques mhm. un mort virgule quelque chose lay nekk par jour nga dem juin muy soixante six un peu plus de deux morts nga dem juillet quatre vingt mu nekk un peu plus de trois par loolu da xool tendance situation boo koy boo koy analyser da nga koy xool en statique nga xool ko en dynamique et dynamique dynamique épidémie bi ku la wax nii jarut a jaaxle wala ñu naan la médias yi dañ koy exagérer. Mhm. da nga juum. Mhm. wala jox ñu la les bonnes informations. Mhm. loolu il faut ñu bàyyi ci xel. mais loolu benn dimension la rek. du dindi nag nii de temps en temps nga am euh, yaakaar. bu moor yi demee à zéro wala mu wàññeeku et cetera mais loolu au jour le jour mënoo ko analyser. deuxième variable bu may joxe rek yem ci. pour joxe une idée. effectivement ministre de la santé il y a dañ ko interpeller ci li mu waxoon ni dépassé nañ pic bi pour justifier lu taxoon ñu teggi les mesures euh, restrictives mm-hmm. dañoo ne woon euh, apparemment dépassé nañ pic bi parce que eggoon nañ 177 le 11 mai mm-hmm. di wàcc mm-hmm. démb amaat nañ 177 te pic nag mooy li nga xam ne dangay xool ci gannaaw ne ah il y a deux mois eggoon nañ 177. waaye boobu ba léegi dañuy wàcc ça veut boobu la woon. démb on a eu on a égalé le record. du nombre de cas positifs par jour. boole ci test yi dañ koo wàññi sax. non bu démb test yi bëri na presque yegg na 2000 exactement on était à donc test yi mais le le facteur important moom mooy le nombre de cas positifs. on a égalé un record. donc situation bi. ku la wax nii jarut a jaaxle wala jarut a teg au centre des débats xëj na euh, vraiment euh, war na xoolaat lu muy lu muy wax li mm-hmm. en tout cas effectivité bi ñëpp gis nañ ko loolu moom jarul sax étude mm-hmm. observation directe da ngay gis ni nit ñi takk ñu masque mm-hmm. parfois sax nga am yaakaar nga gis yenn zones yi boo fa demee nga gis nit ñi euh, donc c'est important ñu étudier ñan ñooy takk masque mais surtout ñi takkul masque lu tax takkuñu masque lu problème c'est ça c'est-à-dire mm-hmm. am na d'abord accessibilité mm-hmm. waaye accessibilité nit ñi dàq nañ ko nee nañ masque yi am na mm-hmm. nee nañ masque yi cherul te ku mën a jënd xar war nga mën a jënd masque waaye ba tey loolu ce sont des raisonnements faciles parce que li may wax li ça relève plus de la psychologie que d'autres choses mais loolu benn dimension la accessibilité beneen dimension bi moom mooy conformité parce qu'il faut pas porter le masque pour porter le masque. Mm-hmm. moi j'ai vu des gens yu takk masque wax dëgg yàlla dama leen di wax ne seen masque yi dama leen ngeen sànni ko. c'est a takk masque moo gën li ngeen di def nii. parce que sol takk masque pendant une semaine. photo euh, defoo ci loo xam ne dalay aar. ni nga ko takkee baaxul. ni nga ko takkee baaxul ça devient même un risque. un risque. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. donc Souleymane man masque yooyu itam bëgg nañu interpeller parce que yaa ngi koy wax mais dañu promettre dix millions de masques ñu ne am na programme boo xamante ni bi da koo sam sànq Modou Fall mi nga xamante des day ànd ak waa DER. ci terrain bi nee waa DER nee nañ ko financé nañ par exemple lu toll ci waa loolu tamit beneen wax la parce que effectivement en en en dehors même DER euh, am na yeneen autorités yu annoncé des chiffres 70 pour cent de mise en œuvre effective programme bi. Mhm. effectivement question bi ñuy laajte moom mooy ana masque yi euh, bu masque yi amee tamit ndax masque yi conforme la. boobu mhm. beneen dimension la bu nekk ci mais la question mooy ana maski mhm. bu maski yi amee tamit lu tax nit ñi takkuñu ko. daf may delluwaat ci facteur psychologique. parce que euh, dañuy wax communication xam nga dafa am ñaari am ci dëkk bi. Euh, bu nit ñi jaaxlee rek jiñ communication. c'est un argument très facile. waaye def nañ ñi waroon def yëpp communication bi moo jàll. beneen bi moom mooy euh, li anglais di wax shoot the messenger. moom mooy français di ko wax casser la température. wala le thermomètre. température bi di yéeg nga jël thermomètre bi dem. moom mooy nga ne journaliste yi. ñoo def lii wala média yi ñoom ñoo def nii voilà euh, président wax na ko ci source A euh, journal source A ne woy presse bi mi ngi jéem a joxoñ baaraam tuuma presse bi c'est loolu yombul ah, euh, na xam nga nañu waxante dëgg du ñu nekk dans de dans un corporatisme primaire mun mm-hmm. nañ ko analyser mun nañ analyser est-ce que médias yi effectivement ñu ngi exagérer loolu analyse la nekkul lu ñuy wax nii rek mun mm-hmm. nañ ko xool mais mais il faut pas tomber dans des arguments faciles c'est-à-dire état actuel bu ñu nekk nii wax média yi c'est casser le thermomètre le fond du problème il est là pour revenir au facteur psychologique tey jii euh, bëggoon naa xam d'abord ñu segmenté ña ñooy utiliser ña dul utiliser parce que parfois nga dem yenn lie yi tu es rassuré nga gis ñëpp takk wax dëgg yàlla nga dem yeneen lieux yi damay joxe benn exemple bëgguma stigmatiser kenn am na fu may jaar su may xëy tous les jours benn corps de métier spécifique la Euh, su ma waxul ñan la xëy na du ñu mën a comprendre. Mhm. damay jaar Soumbédioune tous les jours. Mhm. Soumbédioune wax dëgg yàlla nit ñi takkuñu masque. Mhm. du ñii di napp di ñii di jaay jën di ñii di jënd si. kenn du takk masque. c'est pareil dans certains marchés aussi. Souleymane ah, mais Souleymane dafa hmm? am tamit euh, boo hmm? xam ne je pense que peut-être que ko xoolee foofu mën nga xaw comprendre quelque part euh, sortie président parce que suñu nee. xam ñu ne neen dañuy wax ni épidémie bi mi ngi ci niveau bu doy waar. Mhm. mais Sénégal soo xoolee réanimation chiffre bañ fay annoncé tout le temps tout le temps demul ba yegg cent du tiital nit ñi ce qui veut dire que kon am na si ñoo xamee ni personnellement c'est eux qui se mettent en danger parce que quand on nous dit ay autorités yoo xamee ni ay intellectuels feebar tëju seen kër bëgguñu dem hôpital parce que stigmatisation la ñu ragal au dernier moment ñu yóbbu leen fekk cas bi c'est déjà perdu ñu faatu ce qui veut dire part tamit ñoom ñooy toroxal seen bopp di yokk statistique yi euh, di yokk taux de létalité bi waaw ah, mais euh, ça nous au facteur psychologique rek mm-hmm. gis nga pour revenir à mon exemple euh, communauté boobu bi ñuy waxee dañu def gilet gilet de sauvetage pour dem mm-hmm. géej mm-hmm. y a eu beaucoup de résistance nii la demee woon toog nañ ay at yoo xam ne mën nga leen indil gilet yi jox leen ko gratuitement am na yenn milieu du mën a ñëpp nag mais amoon na yenn milieu yoo xam ne boo takkee gilet ñu la ne la da nga ragal mhm. Mhm. yaa fuus nga donc day am nooy travailler ay éléments de langage yooyu indi mhm. ama nit mënoo ko responsabiliser ci loolu xëñ na man mii su daloon dinaa hésiter pour dem euh, dama suñu entourage ñu ñëpp gis nañ ay nit ñoo xam ne amoon nañu ay symptômes ay symptômes ñi naan la ay santiratuma dara ñi naan la euh, et cetera ñi naan la grippe la et cetera ñoo xam ne avant bu ngeen waxtaanoon dañ na naan woy euh, woy man su ma ko amee du ma hésité dem et cetera mais bu ñu présenté des symptômes yàlla rek a xam ndax dañoo amoon wala amuñu mais demuñu mhm. suñu entourage ce sont des intellectuels mhm. des collaborateurs mhm. des collègues yoo xam ne bu ñu nekkee en situation boo gisee seen réaction da lay interpeller mm. da nga ne ah xëy na man su ma nekkoon fii tamit nii lay def donc le problème les individus mm-hmm. le problème c'est ban environnement psychologique la ñu mettre en place pour mm-hmm. faciliter mm-hmm. ni man su ma dalee mu yombal ma ma jóg ne ah man de yéen ñii ñëpp maa ngi leen di wax ni dama ko am donc dandu leen ma ngeen moytu ma maa ngi dem ci euh, médecin yi su ma demee amaana dañ ma téye yóbbu ma ci benn hôtel téye ma fa deux semaines loolu tamit bu amee ma aar sama njaboot et cetera mais ñun ñëpp xam nañ ni euh, plus de 50 pour cent bu ñu gisee symptômes yi du ñu présenté wu chez les médecins. Mm-hmm. donc voilà pourquoi il faut aller au-delà des prescriptions. Mm-hmm. des incantations et cetera. Mm-hmm. analyser davantage. lu tax nit ñi du ñu sol masque par exemple am na benn question boo xam ne dama koy poser fii ça va peut-être euh, provoquer un tout petit peu xale bu jigéen boo xam ne day dafa bëgg jaayu tey. moom taaram la bëgg wone mm-hmm. nga ne ko solal masque suba ba ngoon kenn dootu la gisati kenn dootul gis sa kanam mm-hmm. exemple lay joxe mm-hmm. mën na nekk góor boo xam ne euh, problème am moom mooy takk masque bi am na lu mu koy gàllankoor day yàq ah, sañseem soyons un peu plus voilà day yàq sañseem est bu boobaa bu ñuy defar masque yi duñu xool les dimensions esthétiques ban besoin ban frein est-ce que identifier nañu frein yi tax nit ñi duñu sol masque. duñu respecté. et puis am nañu oui. voilà ce que juste peut-être pour fekk ci fekk si ci li nga wax am na ñoo xam ne dañ naan la petit morceau dafa may yàqal mais am na ñoo xam ne am nay des masques yoo xam ne tu peux pas respirer dedans. Eh, eh, boobu beneen loolu sont les na les raisons mécaniques. Mm-hmm. Mm-hmm. yoo xam ne ñii dañ naan la way euh, mënu ma noyyi. ñii naan la sama bakkan ñii naan la daf ma gêné. Mm-hmm. ñii naan dafa diis et gis nga bu ñu identifié wul les xam ne lu tax nit ñi du ñu def. ba pare corriger ko. Mhm. ci ni ñuy defaree masque yi. ni ñu koy rendre disponible. Mhm. ni ñu koy présenter. Mhm. pour mu conforme ak les attentes. contourner. Euh, les freins yi tax nit ñi duñ ko takk. on sera là à discuter du même sujet. dans des mois donc. analyse boobu bu ñu ko deful fii la ñuy nekk rek naan communication. sensibilisation est-ce que sanction yi kon dina efficace bu ñu wax ñuy wax waxu amende ak yooyu bu fekkente ne takkuñ ko ak répression bi est-ce que dina régler problème ak li nga wax ni non pour chose da ngay combiner mais da ngay combiner mm-hmm. après analyse mm-hmm. gis nga dimension stratégique boobu dimension analytique boobu dafa am mm-hmm. importance parce que one size fits all loolu la anglais yi di wax. Mhm. moom mooy euh, uni unisex euh, uni mooy da nga jël benn jim benn solution rek. Mhm. appliquer ko à tout le monde. ça ne marche pas. Mhm. il faut nga analyser ba xam lépp. segmenter. nga xam ne Souleymane mii kii nu may euh, jëflante ak moom pour mu sol masque bi. wute naag soxna Fatimi nu may jëflante ak moom pour mu mu takk masque. kii nii laay wax ak moom nii laay jëflante ak moom nii laay et cetera. Souleymane mii xam na yëg na. am na lu mu jëndee masque mhm. Souleymane xam na lan mooy danger yi mhm. Souleymane xam na lan mooy et cetera mhm. ba pare a takk ak ki nga xam ne xamul. yëgul tinul. te ba pare mënul. yorul mun loo mënuñoo bokk àtte. Mhm. donc il faut ñu am aussi cette approche analytique. Mhm. am cette approche stratégique. Mhm. segmenter eh euh, adapte les solutions. ba pare def le bon mix. sinon on tombe dans l'incantation on est là encore à parler pour parler jeter les mots en l'air. Eh, fekk du ñu amal benn njëriñ. <laughs> yaakaar naa ni daal euh, loolu il faut ñu xool ko mais gëm naa ni. bu ñu duggul ci dimension psychologique bi. Mhm. et c'est pas seulement le travail des des des damay dégg temps yi mhm. moom mooy métier bu bees bi. Mhm. tant mieux pour eux et je pense que c'est très bien aussi ñu indi des gens yoo xam ne dañu xeltu ci loolu. waaye les dimensions gis nga euh, am na ay da loolu lay conclure. dafa am ay domaines yu bëri tey marketing. marketing dafa jël lu bëri ci ce sont des sciences un peu sociales yu nekk euh, au confluent. ngay gis ay sciences yu bëri yu leen di euh, informer mhm. di leen documenter di leen indil ay élément pour ñu analyser mhm. marketing daf ko jël bu yàgg ñoom seen objectif mhm. connaître les objectifs cognitifs aimer ba pare agir dafa am benn euh, spécialiste communication bu ñu jël rajo bi keroog mu insister nañu communiquer pour l'action nañu mm-hmm. def pour que nit ñi agir mm-hmm. je suis d'accord avec lui mais encore une fois et je conclus avec ça mm-hmm. nañu xool lu tax nit ñi agiruñu psychologiquement xam seeni ay motivation xam seeni ay frein identifier ko xool nan la ñu yëkkatee frein yooyu teg nele pour ñu mën a continuer waaye toog di wax nii rek en général solution et puis on est au temps de l'action quand très grave décès yi bëri na euh, cas yi aussi bëri na démb ngeen a ngi dégg euh, docteur Niang si plateau bi moom nee na personnellement bu ñu nee dix mille cinq cent cas mën nañ tëg compter trente mille parce que xam nañu problème yi nga xam ne am na euh, ci yenn ci gox yi amuñu matukaay yi mën a tax ñu ne xam ne kii mandarga jàngoro ju ne am wala faju na et tout donc muy ay facteurs yoo xam ne dañ ko war a prendre encore euh, euh, segmentation bi su Souleymane évoque aussi c'est très très très important ñu lay sant bu baax di la gërëm. jërëjëf mu ngoog ma bu jot dañuy ànd ak moom ci jàngat bi léegi léegi mm-hmm. ñu dalal suñu invité. Alioune Tine mooy sunu euh, gan Chérif waaw ñu nuyu ko dalal ko moom it rafetlu àndam ak télévision Futur Média moom moo jiite kon mooy fondateur Africa Jom Center ku ne xam na ko nag ci réew mi. Mhm. nekk acteur bu mag moom professeur Alioune Tine am ñun amul chance mu jàngal ñu ci Sestima jàngal na Souleymane. waaw <laughs> jàngal bu am solo de. macha daana mayoon note yu baax. <laughs> waaw mais mais surtout gis nga euh, moom euh, euh, mu ngi ñu yoroon ci.